Fallou waaw eh, loona waaw yow yaa ragal koor dëgg-dëgg yow gisuma loo ñeme ci àddina yow boo bëree ñu daan la soo wooree di lat la tey nelaw a ka tëdd ka jóg foo dem football sax boo fa demee dañ nay dàq dóor la ay bal yu métti ba bëgg a dee ngay daw di ñëw yow yaa ñàkk fayda yow baa sa nelaw yu yow c'est que xamal luñ problème bi yow maam neexoo toogal quoi yow c'est man su may nelaw nii rek góor du bëgg nelaw góor du ragal góor du ñàkk fayda góor du nit ci yow yow ragal nga ñàkk nga fayda bëgg ngay nelaw. wa jubal toog. maa nga xam foo jëm. noo gontoo nii. bañ a gontu yow boo bëree ñu daan. Mm. boo footballee ñu yenu la teg ci suuf. kañ laa football ñu yenu ma teg ci suuf. soo dem rek teeree boo dem rek dangay dow ñibbisi ak ak nelaw yeeg lépp koor geeg lépp yow yaa ñàkk fayda. yow dara mënoo ko. wuy ma bàyyi ma ma nelaw tuuti waaye koo nuru jógal fii. ku ma nuru. koo nuru ragal ak ak ñàkk fayda maamu góor maamu. sa maam mu góor doon jàmbaar kër gi kenn masu fee dugg daa dàq ko mbaa nga daan ko bëre ah. rek la manan ah yow waxoon moom dàqoon nañ ko mu daw sa maam sa maam sa papa waaw ah. sama papa waaw ah. bëre la manan asalaamu aleykum waaleykum salaam mbaa jàmm ngeenam. jàmm rek maaleykum salaam leer na ngeen def. noo ngi sant eh, yàlla jërëjëf ci jàmm ah sëñ Fallou ah, sëñ Fallou. Ah, a ngi ci jàmm jëlal sees la siyaar naa la jëlal sees man ah. man de Ndiaye laa sant. ah naam Ngom Ndiaye Ngom. maam ak a mën a woy kii. ak a mën a woy ko tuuti rek. ñu ko fa waaw fàllu sax de man ma tax a jóg tey jii. waaw ndax wax dëgg yàlla kenn ku ne. ah boo tëddee ba guddee am na koo yaakaar sa nekk waaye man fàllu tey man moom dama koo fanaanoo dama koo fanaanoo tey wax dëgg maa jor sa yaa ma tax a jóg de oh, yaa ma tax a jóg de li mu ci béer ak laatti njaayaar ak baaba si ndee la faal ah, tey kër ga doy na waa trop ma ne naa xëy nag sama géer gi ah dama koo dégg waaye nag damaa bokk moom tey gi ma ne naa dem rek ci sama doom jooju su ma demee xam naa ne moom bu ma ko waxee li ma tax a jóg rek ah dina faj aajo ji ak weeru ak weeru koor gi waaw waaw. ma ci jaaxal. wa ah weeru koor de moom wax dëgg yàlla man. moom day non man weeru koor moom. Hmm. ndax ba ma juddoo ba tey sama rajo bii laa taam moom hmm. laay ki laay doxantu de. waaw mooy tuuti waaw mais kon may tuuti rek. Ah, sama mayaan ku ko way geer mu xam wayam. samba mayaan. sëñ Fallou bi ma yegsee la xel yi Samba Mbayaan Samba Mbayaan ku koy gee mu xam jëram Samba Mbayaan Fallou ba maa yey see la ñëpp bekk Samba awaay Fallou maa joobi ku limi ci néegi biir laati ñaayaar baaba si nee la faa awaay man de maa yey see la xel yi dal mais yow li nga wax nii dama see kontaan ah ba tax na junni def naa ko ci ah, ah, ah. ah junni xaar ah, ah. yow eh, junni yow kër gi dara new ci kii Samba Mbaye a yorab rajoom ñëw nga naa junni wax maam yow géwél bu ñëw si ñun géwél bu ñëw ci nun te amoon ndogu da nga naa tekk woo sa maam ni ko maam nu may def ak géwél bi ah, waaye doo yaakaar non non mère bul def noonu waaye yow kii jox téeméeri jox ma juróomi téeméeri ndogu amu fi kii nii la ñuy def so la ko waxee nga def ah, loolo non du ma def loolu waaye mais ah, da ngaa yow defal li ma la wax nii nii la ñuy def bu weeru koor teroo loo woy woy rek war a toog sa ba ñu wari waaye waroo gàddu say rajo yi Samba Mbayaar. man nag maam du ma toog. jox ko juróomi téeméer man maam du ma toog wax dëgg yàlla sama rajo bi laa xam te dama ciy doxantu. barke ah, nañ ci waaw lii nag tas yaakaar la. déet di la juróomi te yaakaar nag di tasu teel am. waaw yaakaar gis nga li tas yaakaar mooy joxe li nga am sa kër duñu ndogu amoo ah, ndogu sa yaay ngi yorul mu ndogo yoruma lu ma ndogo man mi ngi koy man mi sama. waaw la tudd kii lu ma jox sëñ Fallou turandoom ah, joxaat ko kii dafa gàddu rojom te yaakaar kenn du ko. waaw yaakaar naa dama laa fanaan dara sax ñam nga si jug nga ba laal ci. man damaa juum sax ñam ci. ci weeru koor wi man ku ma man ku ma nuyu nga man ku ma ci ñam na la jox juróomi man ku ma nuyu nga wax ak man. jëlal juróomi téeméer looloy dëgg. jëlal lépp sama waa ji. waaw sama waa ji ndama nga ci waaye gàccee nga ci. da ca yaa ndey sa jeey maa jori sa jeey yow sa yaay waaye man mii di la way maay sa yaay barke yonent bi oh, barke Seexul Xadim man xamal naa ne su ma ñëwee nga faj sama aajo maa la wax loolu yow yàgg ngaa joxlante te nag su ma yoroon ay million tay jii ma ñuqi lépp jox la ko xaar nga ma sama kondaane maam tey la tey ah, demal ba ma dem ba ma dem xool maam ko toppee wax dëgg yàlla baax na lool waaye lii de moom lii de lii de lii wàññeewu dara buñ jógee ndogo ji nga toog doo ndogo xanaa leen waaw kon daane bi ñu ndogo ci sëñ Fallou lañ ko tuddee fondel naa kii sëñ Fallou la tudd yow tee ngaa bàyyi sama kondaane bi doom man booy saytaane maye junni bi nga yoroon du nu ndogo bu ci boole sama condamné. mère mayatal ma foofu tuuti rek benn benn sambay mayaan rek comme ni nga ko defee. ah maam moom xam naa ne su ma ko wooyee su ma la wooyee di nga ñëwaat. dafa ne samba mayaan ku ko wooyee kii mu xam ni cëram. samba mayaan sëñ Fall bi mu xewlee la ñëpp beeg samba mayaan. ay góor waaw daal nit kenn mënu fi nelaw yéen lan moo kew fi. ah xëy si sama géer nag rek. ko ëndu ñu ngi jégalu ñu ngi jégalu père ñi ngi jéggal damaa xëy si sama géej. yow da nga réewaa ah, yow di nelaw ngay déranger weeru ah, koor bi bii mooy de réew ma ah? kii li mu defanteeg lii lu yàgg la indi ma ah déedéet ngi jéggal indi loo ma dolli joxoo ma ma ci dolli indi ma gis ñi ngi eh, jéggal ñi ngi jéggal ah déedéet eh imahoot demal ñibbi dañu nii dañuy nelaw. dafa gëm ñu ngi déggalu baal ñu àq baal ñu àq yow da nga réewaa ah, da ngeen réewaa. Ah. maa ngi dem jërëjëf Fallou. waaw na mujj tey dégg nga. yaa ngi dem waaw maa ngi dem. waaw après nañ déggoo. yal na la yàlla fay. amiin waay yow jëm ak yàlla tam. amiin waaw koor laa xew. dañ laa loxo. dañ laa yey xoolal xam ngeen lu ma leen di wax kër gis nga kër gi da ngeen di régler problème bi mbaama régler ko. yow réew nga torop ah. non ñu ngi jéggi à la dernière dernière interruption. bul tàng ñu ngi jéggi bu fi amati. damay nelaw damay. waaw waaw baal mi baal mi damay dërëpp récupérer fi seewaay li du woon xodu ah soo ci waxul sa sët ma wax ci ah. baal ma dinaa ci wax dinaa ci wax dama dinaa ci dinaa ci wax dinaa ci wax. mu jéggal ñu waaw waaw ndax ne noo tooñ nag yow mi dem woo ab ci koor gi yaa tooñ ah, may wax nga dem génne junni bi fi desan jox ko di nga xam looy ndogoo ñu daj si condamné mi ndogoo ne da ngay wax rek la fa nekk ne dafay yàqu rek sama yàquwut léegi yow doom taxawaaloog wëndeelu bëgg naa laa takkal jabar sax waaye banaa ko condamné bu ma yoon nga ci sa bët wayaankat yi di taxawaalu nga naanu dajji sa condamné ba wayaan du taxawaalu de wayaan du taxawaalu de fi leen ko fekk fi koy bàyyi koor gi ku ci wayaan da ngay taxawaalu